di sant yalla bu baax bum ñu mayé ñu def euh, ñetti semaine campagne électorale yo xamné ne amuñu dara lo xamantene ni mom lañ ci ñaawlu wala luñ ci reccu ku ñu yalla mayé tamit ba ñu yegg si bi tay mu ngi taw té taw yaakar nañ ñun ñëpp ne xéewal la bu ñu yalla indil eh, gis ngeen ko malgré taw bi population bi génn na bu baax pour ñëw voter si luñ leen waxoon ci clôture bi rek lañ leen di nañu ñëw voter si jamu gennat ci jamm baña nangu ben provocation mais aussi dem tok parce que ñun ñëpp ño bok réew mi Sénégal jamm rek la xam Sénégal deku jamm la et que par conséquent lepp lu koy suxat ñun acteur politique yi nañu taxaw si léegi nag ñu ngi continuer fii ak ngoon di suivre évolution bi di mobiliser suñu militants yi pour ñu ñëw mun a voter lii ñu fi gisagum dal na suñu xel ndaxte mag ñuñ doon yaakaar ne ñooy kii mag ñi ñëpp génn nañ ba teel a voter ba pare ba ñu si bari génn nañ voter donc jigéen ñi aussi génn nañ kon daal dañuy sant yàlla bu baax rek di wax ne dal on continue ñu ngi suivre fi ak ngone inshallah lan lañu yalla di wa message bu may adresser électeur yi mom moy c'est que dal mu ngi taw taw bi ñepp lay tawal légui nak comme nuñ ko waxé won rek si campagne bi té yaakar na né sax ñu bëri wax nañ ñuko bu ñuy bu ñuy genn ñu ci bëri né won nañ ma DG mu taw ak mu ñak taw yépp ñun dinañ genn vote ji donc jël nañ moyens yi nga xamné nécessaire ñu genn léegi nag lu ñuy wax ñenn ñu gën a ñu kiyagul oto yaa ngi fi mobiliser nañ moyens yëpp pour ñu génn nañu génn nit ñi jëw jël leen voté si mun nañ vote calmement te ndox du leen laal ndaxte tawagu fi taw boo xam ne mun na empêcher oto yi daw kon léegi nag ñu ngi ñaan ñëpp ñu nga xam ne génnaguñ ñu génn et puis yaakaar naa ne d'ici la fin de la journée dinañ améliorer taux de participation bi bu baax a baax